Euh, donc damay gërëm ñëpp di sant ñëpp di wax ni sénégalais yi li tax ñu voté quinze points yi ñu décliné réforme bi yaakaar naa mooy tax ñuy voté euh, quinze points yooyu yaakaar naa dinañu ko décliné ñëpp dinañu ko am mais ñi ci ëpp solo mooy ni sénégalais bi citoyen sénégalais dañu ko bëgg a jox ça un point très important assemblée nationale dañu koy jox gëdd parce que jusque là contrôle euh, euh, de du gouvernement amuloon de manière effective mais aujourd'hui le l'assemblée nationale assemblée nationale dina am donc un contrôle ci assan ci ci ci ci gouvernement bi loolu am solo président assemblée nationale gën nañu ko may gëdd président assemblée nationale aussi euh, ci juróom-ñaari juróom-ñaari membre du conseil constitutionnel président wax na pour que ñu jox ko ñaar ñu muy tànn yaakaar naa ça c'est une avancée démocratique loolu kenn mënu ko kenn mënu ko bañ. mais leerul ci xelu askan wi ñu bare est-ce que la mooy seen taxawaay fii léegi élection bi. mooy ñëw waxtaan ak nit ñi expliquer leen exactement lan moo nekk ci biir donc euh, euh, réforme yooyu te am naa yaakaar ni bu ñu waxtaanee ak nit ñi parce que ils nous font confiance bu ñu waxtaanee ak ñoom dinañ leen wax lan moo ci nekk njëriñ bi ci Sénégal am. ak njëriñ bi nga xam ni suñu doom yi ak suñu sët yi ko ci am maa ngi leen di gërëm di leen sant ñëpp sa diggante ak Thierno léegi jàmm moo ci am te jàmm moo ci war a moo ci war moo ci war am te jàmm moo ci am xanaa wax leen journaliste yi rek ngeen jàpp ci mais am naa yaakaar ni fi mu ne nii bi gannaaw bi ñu président oowee yaakaar naa ànd rek moo moo fi war a am te incha allah dina am en tout cas nous sommes dans les dispositions